première impression mooy on a eu la chance d'éviter la catastrophe peut-être ça allait être faire mal parce que vous savez ci affaire kason yi bu ñu ko yoree des détenus quoi quand dañ leen garder quelque part il y a deux hypothèses dañuy def mutinerie mais sans évasion ni tentative d'évasion mm-hmm. mooy cas bi am heureusement mm-hmm. parce que dañoo def mutinerie utiliser violence di contester benn affaire bon violence bi li ci ëpp sax violence verbale la ak la destruction quoi de de état lié yeeg yooyu mais li ko indi c'est-à-dire jamono ji moo dem moment boo xam ne xam nga trop de droit rek day rey droit nañu waxante dëgg rek quoi xam nga li fa dugg yëpp xam nga lu ko indi li tax cas bi am mooy on autorise chaque fois l'alimentation par des bool bool quoi bool yi ñuy def pénitencier day yegg moment yoo xam ne li tax problème boobu possible mooy dañoo communiquer day am concertation ak li ñuy wax entente préalable loolu li ko indi nag mooy mooy de communication yu dugg ci ci tribunal ci kii bi kaso bi ak drogue bi ak xaalis bi li ko loolu c'est favoriser parce que gis nga tabaski gi bi tabaski gi après tabaski xam nga lañ ko def. Mhm. xam nga les pénitences dañu jël seen temps di di vérifier bool yi chaque fois mais malheureusement yi mel tabaski bu amee xam nga Sénégal culture mag wax waxam ah, bool la ñuy bari. waaw ñëppay indi bool yàpp bi day am ay yax. am ay os yu ngand am lu ne léegi nag les pénitenciers foofu lañ leen di tromper bu gaaw parce que c'est difficile ay 500 boolay ñëw. ngay jël sonde di sonde gars yi war a lekk nit ñi taxaw nga ubbi bool yi. di sonde comme tabaski la boo sondee eh, mu dëgër yàq nga génn muy yàq xëy na nga am chance daj mm-hmm. mais boo sondee léeg-léeg muy yàq nga génne muy yàq nga sondewaat muy yàq nga sonde muy yàq nga bàyyi c'est ça comme ça que les choses entrent là léegi si noonu aussi la ñuy dugal yàmb bi parce que système fourmi fourmi donc ñiy def dil boobu dañuy bari ba nga xam ne pénitencier bu nekkee période tabaski comme tabaski gi nii gars yi mën nañ dugal leen neex mais effectivement les petits pénitenciers ont été vigilants ah. parce bi affaire yi duggee en masse mais sentir nañ ne gars yi dugal nañ ko. kon da nga jàpp ne yow si période tabaski la. waaw day day am ak yeneen période ah ban nañ la nax kaamil bi comme kaamil bi dañ ko yettee. Mhm. ah sama waa ji jànkatu alxuraan la kaamil dañ ko yett ni dugal ci portable dugal ci portable. dañ koy def. Mhm. mais les gens là mën nañu jënd sax xaal wala dara dugal ko ci. Mhm. vous savez administration pénitentiaire c'est un métier à risque parce que xaal mun nañ ko ci dugal léegi boi yi ngay gis ay sardines ay corne bœuf gars yi mën nañ ko reconditionner rien n'est impossible. dañ koy reconditionner. lu ne la ñuy def pexe pour dugal ko fa mais li pénitence yi def mooy les fouilles périodiques mhm. maintenant nag détenus yi comme ñoom dañoo def ay dir xam dañu tey bu ñu leen fuyee sanctionné mais ñu rebelle wu mais dugg bi entre nous euh, en milieu carcéral mënoo ñàkk gars yi dugal affaire yi mënut a ñàkk parce que comment ça mënut a bi la cest lu mel ni tabaski je te donne un exemple imagine tabaski cinq cent bool ñëw ñëpp def ci yàpp ba mu fees le gars qui a l'intention yàpp bi day bari tout ça il contrôle boo demee dañuy fuyee bool yi en temps normal mais avec le temps il faut mu am ñu échapper dañuy jàpp chaque fois mais day am yoo xam ne comme période tabaski exemple laa la jox xam nga tabaski y a des largesses on amène yi nag foofu dañuy plutôt mettre le paquet. Mm-hmm. te et puis plus grave pour vous dire en matière de prison comme suñu prison yi gis nga gars yi bu ñu xasee ba portable yi dugg là-bas danger la. Mm-hmm. gis nga bu ñu boo leen mayee cour cour ni dañuy jékki-jékki rek sànni waaj da leen di orienté rek sànni ko. am na détenu yoo xam ne dañoo génn kaso nekk ci biti gis nga fi ngay ñoom ñooy coordonné ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir bu ñu xasee ba am portable ci biir mais c'est fini parce que ils vont coordonner avec quelqu'un d'or koo xam ne il vient du milieu génn boo ne ko maa ngi ci Mirador 5 ci suuf. Mhm. <laughs> buy sànni portable da koy jël. fekk yéen ngi cour mhm. moo tax droit bi ñu leen may la ak humanisation bi prison bi moo tax les pénitenciers les aides les assistent. mais gisoo ne nga xamante ne moo di mutinerie bi mënoon a gën dayoo. non si da ko doon gën di. parce que des des genres GIGN propres à l'administration pénitentiaire des gens très sur les émeutes. Mhm. kooku ñu ngi leen formé woon temps ñoom Ino nga nag Ino ñoom. Mhm. ñoom Boy Naar. Mhm. ak ñoom Ifra. ak ak ñooñu dañoo daan def dañoo mës a def bu garaaw bay fetal ci sax Alex alepo l'époque. depuis nag dañoo créé benn corps administration pénitentiaire boo xam ne mooy ñu doon fuyee. waaw ñoo xam ne non ñoom à la c'est propre à eux la gendarmerie sax est venue en renfort c'est normal mm-hmm. parce que ils sont devant deux cent cinq cent mille personnes donc il fallait que gendarmerie ñëw mais la l'administration pénitentiaire a un corps dafa am ay cellules ay pelotons yoo xam ne ils sont spécialisés dans ça mm-hmm. c'est ce qui nous a permis que fetaluñ kenn mm-hmm. gaañuñu kenn on les ils ont fait mais am na ñu jàng nañ ko ils les ont ñu lakk tuuti c'était pas de la faiblesse mais il fallait les les circonscrire. Mhm. sans les blesser. mais gis ay ay grenades lacrymogènes. ci biir ci biir prison renfort ko indi. Mhm. parce que c'était pour les anéantir un peu ñu regagner kii quoi ñu regagner les cellules. les mais c'est de la délinquance c'est normal. Mhm. parce que les gens quand vous les mettez en prison. il y a des mhm. ce qu'on appelle la contrainte physique ou morale extériorisée ce qu'on appelle ça c'est des c'est dans les causes de non culpabilité euh, subjectif de non imputabilité donc nit ñi dañuy am ay réflexe de révolte réflexe de de de préservation de leur intérêt parce que ñoom bordel ah, bi ñu dégg vidéo yi saaga yi waaw di saaga mhm. di jiiñ sax un pénitencier c'est pas vrai mm -hmm. ils pas la drogue là-bas parce que y a des chefs y des gens qui regardent c'est des choses un peu compliquées parce que Sénégal boo ne kenn du fi indi lekk kenn du indi naan lu dul savon l'argent ne doit pas entrer te déjà xaalis bi dugal. gis nañ ko foofu kay. xaalis en pagaille. xaalis bi dañ koy bind. Mhm. di leen ko servir donc ñun aussi euh, on trop influencé par les droits humains droits humains de sorte que finalement pour nga mën a gérer un milieu carcéral. sans mhm. ça c'est un peu difficile. Mhm.